baax di sant ci taxawaay a li ma la ko waxee woon rek li ci si yonent yi ba ci gaa yu baax yi suñu borom kum céeréel nattu la kum céeréel teg la loolu moom aada ba baaxul baax rek la loolu neex sa bopp sant ak suñu borom loolu ci naqari muñ ko ngir sa borom xam ne moo moo nattu la rek waaw mu ko daal ci yonent yi ba mu ba mu tal maa ngi wilaay yow nan mu ko nattoo ren loo ko doom waaye lu ci mujj xéewal gu gu di di di ba léegi sëñ Tuubaa tooñul kenn tooñul kenn ci musta booleeg dara yàlla ne lu yàlla ak yonent a ana lu lu lu ñu ko def ak fa mujj noonu doom la demee yàlla yàlla yàlla benn jaamam foofu yàqul foofu juumul lu mu def rek na la defar la lu mu def rek ak defar la te mooy def mooy din nag kenn deful dara leçon bi moom jàppaat nañu. <laughs> noonu dong la demee jërëjëf loolu la demee du leneen. jërëjëf waaw sant yàlla tey tey sax ci muñ ngir yàlla. dëgg la yi rek. dëgg la sax ci diggante boobu rek. dëgg la la <laughs> ñu ngi lay sant nag bu baax. ñu ngi lay sant ci taxawaay bu baax di la gën a sant nag ci Ababacar mi. moom moom gone la ma ko bàyyam. gar mi la. waa ah. ah. te Mbàkke ñun mënuñu laa fay. amin